ko foogewul ma ni Adji Sarr nee na moo gën a yàkkamti moom mii jigéen di ndaw tolli ci vingt ans ñàkk ndey amul benn soutien maa ngi nekk ba kenn ku fi wutati rek di wut per jom ba ko ba di ma convoqué ay réunion naan ma féministe si la en tant du réseau population et développement de l'Assemblée nationale en tant que koo xamante ni bi ñuy prolonger l'agenda post 2015 à Stockholm 2014 j'étais là en tant que en tant que ku convoqué les 47 pays les 47 pays de l'Afrique et je suis développement Je travaille sur la condition des femmes. Je lutte pour les femmes et les jeunes filles. te defe naan ni képp ku naan musli waxoo ci xamoo li xew wala seetaanoo actualité man sama spécialité mooy xeex pour jigéen justice pour Adji Sarr monsieur le ministre ñun duñu wax président na fexe justice am dañu naan justice bi nañu fexe mu leer ndax bi ñu soxlaa ñu jébbal leen suñu collecte dañoo def li ñu war a def pour permettre leen mu leer ñun nag duñu dindi suñu mbalaanu sutura kolek pour affaire bi leer ñu naan ñu dañ koy maslaa kenn du ko fi maslaa na leer fukki bakkan ak ñetta rot ñaata nit a gaañu ñi nekkoon ci kaw di dóor nag ñooñu police lañu gone yi ci mbedd yi lañu dee loolu police a xale bi ñu jam nag kooku police a arrête arrête affaire de civil la affaire de Ousmane Sonko la ak Adji Sarr ñun dañu am intérêt mu leer dañu jël suñu ay risque lever immunité parlementaire Ousmane Sonko mu nii dafa yàkkamti yuux dana jub ko foogewul Adji Sarr ni ko maa la gën a yàkkamti man mii nga xam ne mënumaa dem mënumaa ñëw sa vie et en danger. Nous sommes des parlementaires. Avant tout, nous sommes des politiques. Avant tout, nous sommes des mères, des sœurs dañu bëgg mu leer na leer nañ mënuñu koo maslaa di gërëm nag suñu kilifa diine yi ñoo indi équilibre social nit bu amee jàmm cim réew day a xam lu ko ko may ñoo ñoo ñu may jàmm ndax ñun dara ci ceddoo ne ci suñu biir bu ko kenn yee bu ñu kenn woo ci combat mortel loolu rek lañ daan dunde bu ñu kenn woo ci combat gladiateur ndax xam nañu lu muy firi ñi seeni loxo dagg xam na ni police yorul jaasi de ñu ñu tiim di leen tiire xam na ni kooku du pour xanaa xamoo ni police ñoom xam na ni dañ ñoo filtré xanaa xamoon ni xale yi seen yaram a tàng ndax dara ci ceddo ji ne ci seen biir waaye ba ñu delloo ba lépp sedd xam na ne dañoo ñoo filtré te ñoom dañoo doxe xel xam ni bu ñu jéemee tiire ci ñi leen filtré ay milliers de personnes de jër a ngeen jëf def ngeen li ngeen war a def le président de la république nag ne ko tey jii la gën a am suñu confiance moo wax moo dalal suñu xel asalaamaaleykum wa rahmatullah naam ñun dinañ ko def en magent te dinañ pause am na ñoo xam ne balaa ñoo xëy si sum-sum la ñuy ndekkee bu ñu ñëwee di wax li leen neex di def li leen neex yaakaar nañoo moom nit ñi nañu dal lii assemblée nationale la ñu nekk ay élus du peuple ñu wóolu ñu fa ñu jógee fonk ñu indi ñu fii monsieur le ministre ak ay loi bi ak ay jàll ak jàmm xaaj bi di wax yëpp ba muy metti fekku leen fi ba leen seen askan di soxla di leen fal ñu ne conseil municipal seeni i commune ak seen i département fekku leen fi léegi la neex nag waaw am na ñu fi ne ne waaw dañ maa fal fa ma dëkk jaaraama président de la république ndax moo indi quinzième région bu ko indiwuloon amaana ñeneen ñi dinañ dund ba dee kenn du leen xam kon am na ñoo xamante ne bu ñuy wax war nañ xoolaat bu baax ci li ñuy wax élection locale moo ñu fi indi de demaguñ ci législative demaguñ ci présidentielle cinquante huit pour cent yi démb la du ma ne barki démb la démb la su ñëwaat ko ko waraat ko cokku mundu jaxase ay nit baaxul xeex ay waaso baaxul jaxase ay dëkkaale baaxul man de samay dëkkandoo ñooy samay mbokk am naa sama rakk bu juddu 84 turandoom musulman la monsieur le ministre bi turandoom lan la bàyyi leen ni ngeen di def ba Sénégal gi mënoo leen koo taal mënoo leen jaxase nit ñi mënoo leen jaxase tarixa lañ mënoo leen jaxase waaso delloo si waat leen seen xel te xam ne Sénégal gi benn bopp la ñun ñoo ko bokk ni ngeen mel ñun ay xale lañ waruñu woon fii taxaw sax di leen wax loo xamante ne yéen ñii suñuy kilifa yéen a war a mais am na ci ñoo xamante ni ñooy kilifa ay kilifa ngi la ndax nawlawuñu leen seetaat leen seen bopp monsieur le ministre ma waxaat nag samay mbokk bëgg a tudd di wut ay pièces di wut nationalité ndax Sénégal lañ merci beaucoup Anna merci beaucoup Lorsqu'on dit que les conseils départementaux peuvent rester, aujourd'hui, il n'y a plus de conseils départementaux. Depuis le 28 mars 2021, aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc l'article 2, Amatoul, un socle sur lequel vous pouvez vous pour dire que nous rester jusqu'à l'élection donc de nouveaux élus. Le deuxième point, Monsieur le ministre, moi, la légèreté simplement dans la planification. le Covid a trop bon dos c'est trop simple trop facile après trois reports ñu mën a tegaat lépp ci kaw Covid un État sérieux un État qui se planifie qui se projette pour des questions aussi essentielles waroon na mën a régler ces questions-là bien avant il y a un amateurisme il y a un jeu et on comprend tout simplement que c'est un jeu de politiciens et tout simplement vous êtes en train de menacer encore une fois les bases même de la cohésion sociale lépp li yëngatu ci réew mi depuis quelque temps en prenant encore ces mesures ces lois indi ko fii avec une majorité pour faire passer donc ces lois-là vous êtes en train tout simplement de renforcer cette perception extrêmement négative que les Sénégalais ont du fonctionnement donc de l'exécutif du fonctionnement de la justice et du fonctionnement donc de l'Assemblée nationale monsieur le ministre lii xewoon sànq waroon na mën a tax que chacun de nous puisse revoir un peu sa copie et sa façon de fonctionner. Il y a eu un peu trop, un peu trop d'amateurisme et très sincèrement, naturellement, ça va passer, mais les Sénégalais, vous les entendez, aujourd'hui, ce projet de loi-là, c'est encore une autre forfaiture sur la démocratie et une agression sur le Sénégal, sur le peuple sénégalais. Malheureusement, elle sera votée et c'est dommage. Merci beaucoup.